problème mu goney Sénégal ak lan moo wax ci ñoom lu am pastis loo xam ni buñ ca doxee rek lu bëri saafara alors maa ngi lay gërëm parce que da nga wax ju am solo dina ma permetre ma wax ci jeunesse Sénégal dañu am jeunesse boo xam ne man dama fier ci ñoom ci seen engagement ci seen citoyenneté du ñu def lu ñu leen di xeebee kenn ku ci nekk li ko yitteel mooy nu mu def ba teral njaboota teral ndeyam teral baayam boo dem di dugg ci géej dara waralu ko lu muy bëgg teral seen njaboot Babacar état bu Sénégal di jox liggéey ko amul diplôme Babacar ndaw Sénégal gàcce ngaalaama ñoom ñooy wutal liggéey seen bopp booy bi nekk commerçant lu ko état defal booy bi nekk tailleur lu ko état defal ki doon mbër lu ko état defal ki song géej gi jël mbëkk mi dem ak euh, Europe di liggéey di yónnee di seetal njabootam lu ko état defal alors ñooñu dañ leen war a bàyyi xel tey bu booy yi génnee ci mbedd mi sànni xeer ñu ne booy yi dañoo réew cautionné wu ma violence bi de mais dama ne mën naa koo expliquer parce que man dama jaar foofu ci ñoom. xëy di régler sottiwul. xëy di régler sottiwul jéem mu të nga song mu jafe nga yuutu mu dagg. lan moo war. li war tey du di leen jox biberon. jóg nañu xeex nañu génn nañu wane nañu seen mer yow président de la république nga ne dégg ka leen kañ nga leen dégg juróom-ñeenti at ci ginnaaw c'est un aveu d'échec en tout cas par rapport à toutes les politiques de jeunesse déroulées jusqu'ici ça veut dire tout simplement amul résultat bi ñu ñi doon xaar tey boo gisee booy génn nekk ci mbedd mi douze ans treize ans 17 ans 18 ans xoolal ñu ñu rey am na ci ko am 13 ans ras-le-bol ak ñàkk espoir ci seen kanam moo tax xale yooyu génn ci mbedd mi nga jóg nga ne da leen di jox cinquante milliards sur 3 ans loo mënul lijjanti ci 9 ans di nga ko régler ci ñetti at. en encore une fois jooyanti mën naa ne ma ñëw mais pertinence orientation bi orientation bi mooy am solo orientation bi moom moo am solo xam nga bu fekkee ne li fi newoon fa la ñu jaaraat même problème yi même cause yi day indi même effet yi parce que bu fekkee ne financement yi fi jaar dégg nga ñu naan dugal nañu fi soixante milliards def nañu nangam nangam ku ne xam na ne financement yooyu financement ay militant la moo tax ma wax la sànq ne la gone yu Sénégal jeunesse su Sénégal ñoom ngay gis ci marché luuma yi jeunesse su Sénégal ngay fekk ci géej gi jeunesse su Sénégal ngay fekk ci euh, foraay yi jeunesse su Sénégal ngay fekk ci euh, marché yi ñuy yenu di baare nit ñi ñooñu gisuñu état état fekku leen état ñi muy dimbali mooy ñi gën a yaafus mooy ñi ñuy financé ñi ñuy financé mooy ñan mooy militant yi il est temps ñu xam ne liy defar réew mi. dañ koy bañ waaye dafa mel ni ñi koy wax bëri na. c'est des décisions Babacar politique extrêmement forte tey bu ma jëlee sama benn rak ñu ne ko damay liggéey mu créer atelier tailleur bu créer atelier tailleur di ñëw ñu bàyyi yëri yi jóge Chine ak Italie di dugg ci Sénégal est-ce que kooku dana doon milliardaire est-ce que kooku dana dana tekki ci la muy liggéey. mais Sénégal amul droit bloqué luy jóge biti réew itam ci noonu. loolu nga xalaat. ci li ñu tënk ci li ñu seq ak yeneen réew àddina yi jaare ko ci ay OMC ak noonu. oui mais xam am na am na lu ñuy tuddee euh, des stratégies de protection. loolu dafa am pooju ginaar day jóge bitim réew dugg Sénégal ginaar. ginaar yi daan ñëw importation bloquée. depuis combien de temps. waaw mu ngi bëgg a defub diir. Ah, pourquoi. parce que ñi nga xam ne ñoom ñooy defar aliment wu ginaar yi ñooñu ay ay borom doole lañu ñoom ñoo def pression ci état bi ba ginaar dootul juge bitim réew di dugg ci Sénégal ndax bu ñu ko defee ñiy yar ginaar ci réew mi dootuñu jënd aliment yi nga xam ne ñoom la meññee yu mag yooyu di defar waa mais suñu menuisier yi ku leen di xeexal ñoom. da ngay liggéey sa meuble teg ko ci corniche bi ñuy romb di ko gis meuble di jóge Chine di ñëw di jaar di jóge Italie di ñëw di jaar di jóge euh, Turquie di ñëw di jaar dàllu ngaay kenn du ko sol waaye dàll bu jóge Turquie day ñëw di jaar dàll bu jóge Italie di ñëw di jaar bu jóge euh, euh, Chine di ñëw di jaar ci attaque loolu ci ci population bi la itam no di ci population bi doo gis kenn mu ci bawoo Ndakaaru dem ne maa ngi dem ngaay xool daal yu baax jënd ko mais xam nga man damay damay wax un état stratège état stratège mooy état boo xam ne day xool li réewam soxla mu xam ni lii yitte la mu fexe moom nu ma ko yittewoo di ko defar ci réew mi dama lay jox benn exemple bu banaal Babacar man je suis entrepreneur man li ma xam mooy nu ñuy liggéeyee xaalis nu ñuy lekke xaalis xaw ko nu ñuy liggéeyee xaalis laa xam réew jullit la ñu nekk quatre-vingt-quinze pour cent de musulmans da nga gis sijaada bu ñuy defaree Sénégal ñaata sijaada la ñu soxla ci réew mi gis nga peru course bu ñuy defaree Sénégal ñaata course ñoo nekk ci réew mi gis nga kaamil bu ñuy defaree Sénégal ñaata kaamil ñoo nekk ci réew mi c'est ça que j'appelle un état stratège mooy état boo xam ne day xool li askanam bëgg mu yittewoo ko dem xool ñi nga xam ne ñoo nekk ci secteur privé dooleel leen ngir ñooñu mun a liggéey am teraanga di yokk parce que ñi nekk ci privé bi entrepreneur yi bu ñu yokkoo état moom mooy yokk population Sénégal dafa tuuti 17 millions la mais xoolal CEDEAO 400 cent la ñu loolu waa Nigéria dong ñoo ko comprendre moo tax ñoom waa Nigéria ñu jël seen ay nit dooleel leen ba ñu mën a fees seen réew ñu génn ñu leen dem leen bitim réew Sénégal tey am nga fi FBN banque am nga fi UBA am nga fi Dangote ñooñu ñëpp ay mastodonte lañu ay tunkal lañu ci seen réew. waaye seen réew ñoo leen jàppale ngir ñu mën a fekk beneen réew tey yu Ndour bu ñu ko jàppale woon mu dem Abidjan dem ci yeneen réew kan mooy gagné du Sénégal Serigne Mboup bu ñu ko jàppale mu dem dans la sous-région kan mooy gagné du Sénégal xoolal vallée bi ñu am ak ceeb bi nga xam ne ñu ngi dem di ko jëli bitim réew bu ñu góorgóorlu woon def ci fulla ak fayda ni ñu ko defee ci stade bii ñu commencé ci jam ñaajo yaakaaroon ne woon tey dootu dootuñu nekkati di wax waxu ceeb bu ñuy jëli bitim réew gis nga état lu mu song. 2017 ma ki Sall waxoon autosuffisance en riz maanaam dinañ béy ci réew mi ceeb bu doy ñëpp waaye ba léegi sottiwul. mais du gaaw a sotti mooy li ma lay wax ne volonté politique 350 milliards c'est bien mais sénégalais yi dafa am leneen lu ñu soxla Babacar Tunisie bërki démboo Ndiaye lan la ñu def fusée la ñu ci espace bi. Mm-hmm. mais li ñu la seen satellite bopp satellite boobu man lancé naa satellite dugal ci fusée jàmbur waaye seen satellite la satellite boobu ñu lancé man du loolu moom ma intéressé de xam nga la moo ma intéressé gone yi ko def gone yi ko def ay gone yu am entre vingt cinq ak trente ans ñoom ñoo lancé seen seen seen seen satellite bopp ñoom waa Tunisie loolu lan lay tekki il faut ñuy jiite ñu xam ne dañu war a libérer les énergies sénégalais yi la jeunesse sénégalaise soxlawuñu biberon dañu bëgg ñu deg leen ci environnement des affaires bu propice boo xam ne tey ku nekk dina mën a demal boppam Steve Jobs ci ñaata at la taxawal Apple vingt ans Zuckerberg Facebook ci ñaata at la ko taxawal bi mu amee vingt quatre ans Serigne bu bi muy jël euh, li fi bàyyam bàyyi di ko taxawal amul vingt cinq ans référence la Mbaye Sarr Sénécar Tour dawalkatu taxi la woon tey jii dafa bokk ci ñu ñuy cité en exemple au Sénégal Babacar man en deux mille deux mille deux mille un deux mille euh, yow maa la yoroon stage wal faj <laughs> mais c'est la réalité <laughs> foogoon nañ tey lu dugg ci yooyu maa la yoroon stage wal fajri mais mais en deux mille trois en deux mille trois j'ai lancé ma propre boîte en deux mille trois j'ai lancé ma propre boîte lan moo ñu ko mayoon environnement des affaires bu propice Babacar en deux mille deux mille trois deux mille cinq j'ai fêté mon premier milliard ñu fête ñu fekke woon fête bi ci teeru bi Youssou nduur dong moo ci xamoon lu ñu doon fête. gërëmee la may euh, yaa ngi doon liggéey ci moom. dama ne Youssou Ndour. Hmm. xamoon li ma doon fête parce que ñaari at ci ginnaaw dama doon liggéey ci moom mais mu xam potentiel bi nekk ci man. saa su ne muy jóge bureau di ñëw di ma fekk ci sama bureau ci rue 19 may génne su may chiffre d'affaires di ci wax ak moom di ci waxtaan ak moom mu may orienté di ma teg ci yoon donc environnement boobu ñu mën a permettre les jeunes sénégalais ñu mën a éclore mais tey est-ce que jeunes sénégalais bii nii nii nii ñii génnoon ci mbedd mi est-ce que am nañu possibilité boobu est-ce que am nañu horizon boobu est-ce que am nañu espoir boobu alors dafa jot mais damay wax ne du ay kàddu du baat du wax dong ay jëf la et ce pays encore une fois trois cent cinquante milliards c'est bien